sàcc ma ko damaa amul dépense bu ma joxe tey ma jël ko noonu rek après bëgg doon joxal ko. ay mënoo ko doon sàcc sàcc xalwa sàcc nga waxal waaw waaye saa yi waxal waaw. tëjal sa gémmiñ moo expliqué la. amul loo wax yow si boo booy sàcc ma njàpp la amul loo wax. tëjal ma dama lay expliqué. léegi libéré ma. lan laa lay libéré. dama saa faral. saa faral. waaye dama saa war a wax kii léegi rek. yomb na xoolal xoolal affaire yi lépp leel na nekk yaa temps yëpp ay affaire yu ñu doon wax fii mbulaton yi doon leel gars yi di ko jël ñu ñaa ñi ko koy ji ñànko yaa fekk ñu ñànko parce que xam nañ sàcc bi sa xaalis lépp leer na gis naa ko sama bët bi ñaangi ko magum jëmm laa du ma woo suba ngoon jox ale ndaw di ma ñëw di ma këll këllee kan moo jël deux mille sëñ Ndiaye kañam dangaa juum de waaye kañam nañ laa gisee ah, jox yow waaye yow doo bàyyi kii wax seen wax nii. yow yow li ma mën a wele sama kanam. yow li ma mën a wele. yaa ko jox mu dem. yow loolu yow li ma mën a wele. kii dama gaa fàtte. kii daa yow li ma mën a wele. xamoo ko. ñaa ngi ko juumoo tamit. eh Ndiaye. kii kii nee nee nee amul weccet. ah ilaaha illallah. borom bitig nee amul yàlla nañu yàlla musal ci mbas mi mbas mi yàlla nañu ci yàlla musal musal ci sunu njaboot génn ko ci biir Sénégal ak àdduna bi yëpp feebar boo xam ne feebar bi li muy indi yëpp daa day rey day ñàkkloo moom da dangay mu rey la boo ñàkkul dee boo deewul ñàkk lii la lay def moom ñàkk maa dee rek. fekk ñàkk lu jaay dépassé damay dem nii nga def. waaye gis nga. yow xanaa demoo marché rek yem ci. marché rek laa dem de nijaay. ah ci weeru koor bi ah kuy dem maa da ngay def ba mu baax nag a mën a demee mu baax lay ah, lay la yow marché doom ngay dem nii ah. Ah, yaa ngi bëgg fiir nag marché rek laa jëm waaw jam naa fiir nag ku yow ku mel ni yow nag <laughs> yow teeloo dem de teelu baa dem weeru koor lañ nekk il faut ngay teel dem marché pour teelu ndugg mën a ñëw toog waaw ah man kay dama woon xaa nga ba côté midi yooyu rek nga dem midi nag midi lan jox ma ma ne maasa nga naan ma midi hmm. soo man damay dem di lijjali ñu koy sàcc ci kër gi jox ma rek ma dem mère Ndiaye mi daba da day jaay taabal léegi léegi li ngay sox marché bi laa bëgg ngeen koy moytu ndax marché bi yow takkoo mask dama lay wax rek takkoo masque te marché yi ñi ciy dugg dañoo war a takk masque defoo gel takkoo masque dem di jaafonteeg nit ñi di duggalante bee génnante beeg génn beeg génn bi waaw bii rek maa ngi seetaan euh, euh, euh, Sénégal set ñi ngi wax ne fi mu toll nii cas yi bari nañu surtout cas contact contact yi contact yi commune yi. jox ma dépasse nga may indil ay man fu mu toll nii naan ma ay maas lii maas laa. contact bi laa lay bañal ma bëgg nga déglu nga dugg ci me Daba Ndiaye mi. jaay jox ma ma dem maas dafa naaj. Hmm. balaa gën a naaj. sax dañ ko da ngay génne dépasse sa joxe bi yéex nag sa baxa bu raat. xam nga xam nga xam nga nag àdduna moom. wuy ma nag. li jënd la. ni jaay. kër goo fanaanoo fanaanoo jeey ba suba jot nga ne da dem di jënd bu ma am nekk ak samay jarbaat ci biir. ay la illallah balaa maa dee rek mu naan ma jarbaat. waaye defal ndànk toll nii. yoroo la. daañu dërëm yoroo la. Ndiaye départ dañ koy fanaanoo. waaw xam nga ni mu demee la rek xam nga léegi couvre fa bi gaaw journée bi gaaw quatre gaa yi waaj ña nga daan dem di wuti léegi ñoom ña ngay wuti. Ndiaye maa sonn ci kër gi. waaw ba ma la sama papa sama yaay di la may. waxoo ko woon da ngay démerde ba nga ñëw suñu kër lu mat nga fa waxoon xam nga lu ma bëgg nga jox ma dépasse ma dem marché wala nga wax ma lu ci mën a. am xam defal ndànk defal dama lay wax xam nga man fa ma doon débrouiller ji ñooñu léegi dañuy débrouiller Sénégal looloo fi am ña la daan dimbali léegi dañuy ñu ngi leen di dimbali dañuy wut ku leen dimbali réew mi daa toj ña ña daan saraxee ngi yalwaan ña daan dimbali waate ñu ngi wut ku leen dimbali ba dimbali jotee jóge woon dimbali sa bopp dépense bi laa yàqamte damay dem marché wax ju bari sax dama nag nii nag yoruma dépense bi nag yow tamit ah nijaay laa ma sa boos bi jox ma dépense ma dem yor dépense bi bañ la koo jox nag yow Yaka. Yaka. lii de war nga koo rus xoole ba say jarbaat di ma jox dépense war nga koo rus tey lan la ñu toogul. ñaŋ eh, yéen eh, eh, lan lan mooy problème kër gi. sëñ Ndiaye jox ma dépense mu naan ma yoru ah, ko mujjee yëkkati ñaar téeméer jox ko ko ne ko def leen ko dépense. ah. ah. ko joxe. waaw xar xar xar maa ngi lii. maa teg lii. waaw li waral kóoru ponk lu jëmm fanaan ak jéeg ba faja dee maa koy demaat ñëwaat. yàlla noppi loolu def fi dara noppi. man denc boo banqué ma jox la loolu dara ah. mais suñu war nañoo joxe. waaw seen ndey bokk ndey ak baay. ma seen day bokk tey nag wan ngeen mi ni may seen ni dëgg dëgg dëgg. bu jooy bu ngeen jublu yàlla bu yiw yàlla. bu na bu jooy sama xol bee fees rek tey tey ni ma seen ñu paan taxawoo fii. di ma toroxal ngeen ngeen ngeen siggil ma yàlla leen yàlla siggil. amiin amiin nijaay amiin amiin nga doon. amiin li mu def moom moom moo seetu xolam. waaw waaw loo nga jooy waaw kenn doonul. da ngaa leew rek kenn doonul la ngay jooy fii ba mu jëm mu tey yow. loolu kenn du ko waaye bu fekkoon dama laa may benn mbéj sax nga man a jooy ba fi nekkee du continuer sa jooy dama lay yokkal la jooyee yàlla na leen yàlla taxaw amiin amiin amiin waay amiin yàlla na leen yàlla loo bëgg yàlla la ko yàlla defal xaw ma nag li nga bëgg sa xol moom yaa ko xam man xaw ma yàlla na la ko yàlla defal amiin laa bëgg waaw waxal li nga bëgg ma ñaanal la sa doom yàlla la yàlla may set amiin may la jabar yow loo bëgg man Sénégal set laa bëgg Sénégal set yàlla la yàlla may Sénégal set amiin te kay ndogoo xam naa foofu dañ fay liggéey. man liggéey foofu man liggéey foofu. foofu ab télé la dañ fay liggéey. waaw liggéey na gaal sax waaw. góorgóorlu dégg kaa salax rek. wane wane wane yaay. naa ko